li taxal nag li tax nag euh, ngeen ñëw fi tey te mooy euh, taxawaay bii nga xam ne yeesalaat nañ ko ci fan yii ñu nekk te mooy yokk cat gi ak kaaraange gi ci barab bi nga xam ni mooy jumaa ji ak penc mi ndigal la lu bàyyi ko ci Cheikh mun Mountakha mu wax ne nañu yeesalaat taxawaay yi euh, defaraat barab bi ba mu gën a méngoo ak li nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon te loolu lépp ndigal loolu lépp tey jii nekk ci loxoom euh, mu digalaat ñu taxawaay boobu ñu gën koo yaatal ndax fi jamono toll ak ni penc mi mel te muy loo xam ne teg na ci bëtam moom mu bëgg na ñu yokk taxawaay boobu ndax dafa mel ne euh, am na yoo xam ne mu ngi romandaat di ñëwaat ndànk-ndànk te suñ ko teelu tëggatandu mën naa doxaat ba delluwaat fa mu nekkoon soññee boobu nag moo indi opération bii nga xam ne amal nañ ko ci jamono yi ñu toll loolu nag am na lu mu jur lim jur mooy euh, am na lu mat téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom yoo xam ne euh, téye nañu leen fii ci fii bokkul nag waxuma rek ñi nga xam ne amante nañu ak ñoom maanaam woo leen ñu ñëw ci biir jumaa ji ñu wax ak ñoom loolu moom lim bu baree baree bari la waaye ñi nga xam ne téye nañ leen ngir ay yëf loolu toll na ci téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn cent quatre personnes yoo xam ne dafa séddalikoo ci yii may bëgg am na ci ñoo xam ne dañoo am jafe-jafey kër ba génn seen kër dem di wëreelu ba yàlla dogal ñu for leen fii am na fi ñoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe seen diggante ak seen waajur ak ñàkk juboo am seen diggante ba ñu génn def li ñuy tuddee fàq ñooñu itam am na ci am na ci ñoo xam ne xëy na du seen waajur lañ amal jafe-jafe waaye seeni waajur ci seen diggante ñoo am jafe-jafe ba ñoom mënatuñ koo dékku ñu génn seeni kër dem am na itam ñu jóge ci ñu dawee ci yeneeni dëkk yeneeni réew ñëw ci biir dëkk bi te xamuñu fi kenn ñu for leen fi am na fi ñoo xam ne dañoo ñëw di def lu nuru ak njabaraan walla ñuy tuddoo ñu ñu doonul di wane ne doomi diw lañu wala sëtub diw lañu te loola wérul am na fi ñoo xam ne dañ doon toxal alali jàmbur maanaam dañ doon sàcc am na ci ñoo xam ne itam dañu doon màndi wala ñuy jëfandikoo luy màndal wala ñu yor ko am na fi ñoo xam ne itam dañ doon taxawaalu rek mel na ñu dëkkul fenn am na it ñoo xam ne euh, yu mel noonu jaxasoo googu ñu doon wax ci penc bi dañ ko fee indi woon muy andi fi embouteillage bu xaw a bari ñooñu bokk na ca def gi ñu ko defoon lu mel ne ab garas oto yi dafi taxaw di woote euh, coxeur yi ak chauffeur yi jaxasoo fi bay egsi sax di woote ci kaw ci bunti jumaa ji am na ci itam ñoo xam ne ay góor ak jigéen lañ ak way laa ko yoo xam ne dañ daan nekk ci penc mi di kar nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy siyaare ba génn ngir ñu duggaat seen oto sax jafe-jafe lay doon wala ñu egsi waaye ngir ñu wàcc seen oto dugg ci biir jumaa ji sax jafe-jafe lay doon ndax dañ leen di kar di leen sonal coono bu metti te loolu am na lu ñu ci sëriñ Saalihu Mbàkke waxoon bi nga xamante ne mi njëkkoon na koo tere ci jumaa ji te ñi fi nekkoon ñu ci bari daw dem ci biir këram wala ci buntu këram bii jàkkaarloo ko sëñ Daam fii la ñu toog waxtu 3 heures ci bëccëg ci weeru koor mu yónnee ay ndaw wooluñu ñu daw fekk ko mu toog ci buntu néeg sëñ Modou Badara bii tey sëriñ Moussa Niang yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal fekkee na ko sëriñ yi bu Cissé moom itam fekkee na ko ak ñeneen mu wax ñu boppam ci làmmiñu boppam ne yëg naa ne penc ma la ma ca doon tere taxawal ngeen ma ca ba mu dañ waaye ñi nga xam ne ñooy war ñoo faral ñu yalwaan ak di sonal nit ñi dañu faa jóge tàbbi ci sama biir kër gii ba am na fi ñoo xam ne danañu ñëw ci biir kër gi ñu teral leen ba seen xol sedd waaye bu ñu génnee ci bunt bi danañ leen fi def loo xam ne dootuñ fi bëggatee delsi kaddu googu ci làmmiñam lañ ko dégg woon ñun ñu demoon ca jataay ba ñu ci bari ñu ngi fii waaye sëriñ Moussa Niang fekkee woon na ko sëriñ Jean bu Cissé fekke woon na ko ak ñeneen ñu bari